wa inni u'iisuha bika wa suryatiha min asseytaani rajim rabbi auzu bika min amasaati sayatin wa auzu bika rabbi an yaxduruun la qawla wala quwata illa billahi aliyil azim Baay Taala ñi ngi lay fay nuyoo di jiital ci nuyoo bi ñuy nuyoo kilifa réew mi di nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yëpp di leen wax aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci nuyoo bu am solo boobu macha allah rabbi ñu am mbégte bu baax a baax jàkkaloo wax ak sa jëmm ji ngir bëgg a waat xam-xam jukki waat aslëf jagleelaat ko askan bi fiñ ñu ciy tàmbalee rek ñu bëggoon xam seet ndax am na ak ñu seet ak lan mooy seet mhm. euh, baytaala seet lu am la mhm. lu yàlla suñu borom subhanahu wa taala baaxee woon ab yonentam mhm. seet googi itam mooy ram la gannaaw ba yeneen ni ngir daanañ seetlu ñenn ña nekkoon nañuy jullit ñenn ña nekkuñu woon ay jullit waaye seet lu am la lu wër àdduna loo xam ni foo dem ci kaw suuf wutal nañ ko tur ak nuñ koy defee fii ci Sénégal nag ni ñuy seetee lii seet wuute ni am na ci ndax seet wax naa la yombul moo gën a jafe ñaan nit ki mën nga koo ñaanal mu nangu ñépp teg ci seen bët mën nga koo seetal doo ko gis seet nag wax naa la ni la dafa wuute ak wax sa xalaat mm-hmm. wax sa xalaat mooy calculer say calcul wala nga tasaara say la la ci sa xel jox rek nga wax ko nit ñi loolu bokul ak seet seet xam-xam la boo xam ni ëhlu kitab dañ ko wéral waaye daa yombul moo tax gis kat fii ci réew mi boo xam ni lu wér lay wax lu jafe la ci suñ biir waaye nag bu dee wax sa xalaat moom daanaka boo xoolee média bi léegi mm-hmm. kenn ku nekk a ngi wax xalaatam mm-hmm. ci lim jàpp ni mooy li am mm-hmm. waaye bu dee jëmmi-jëmmi seet mbirum bàttin la mbir la moo xam ni xam-xam yi daje ci nit ki ngir mu def ko daanaka sax ngir mu ñiy jot seet amuñu jot googu pour gëstu xam-xam bi mu daje ci ñoom loolu moom laa la ci mën a leeral macha mu doon lu am solo boo xamante ni macha allah defe naa tam ci biir seet ci la ci la ci la ci la ay sarax di génne ak yu ni mel mu bëggul xam njëriñu sarax ak doomu ba naka la war a saraxee ak yan sarax la nit ki war a mën a sarax pour ko jël waaw nit ki man nga xam ay saraxam te doo ko seetal doomu aadama daa bari ay buntu yu ñuy xamee dara ci moom mhm. yaa ngi dégg mhm. waaye lii ñi nit ñi jàpp ci réew mi boo gisee ma la koy leeral daa demewul noonu mhm ñu bari dañoo jàpp ni nit ngir nga xam ci moom dara rek faaw dang ko seetal wala dang ko xaaral demewul noonu nit dafa bari ay buntu lool ci téere yàlla bi loo bëgg a xam ci moom man nga ko ci xam boo ci amee ndigal ndax nit ñe duñuy ñuy ma bind rek teg fi suñu borom mi moom nit ñi dafa jël ay responsabilité ci ñoom ñëpp doomu aadama boo gis mi ngi ki malaayika yu koy garde lu mu wax ñu bind am na malaayika muy indi gëm am na malaayika mu téye ak dundam am na sax malaayika mu koy faat yaa dégg nit nag boo xamul sa mbirum bopp xam mbirum keneen dafa lay të waaye xam mbirum doomu aadama ba génn ay saraxam nekkul ni wenn yoon rek moo ci am mooy faw wu ñu seet mbiri nit ki door xam ay saraxam mm-hmm. man nga xam saraxi nit ki te sarax yi dong ngay xam leneen sax doo ko xam ci moom mm-hmm. man nga xam mbiri nit ki xam ay saraxam mm-hmm. te du ni sax dang koy seetal ndax wax naa la seet lu xóot la ñaanayam yombu ñu de. Sénégal nag dañ koo def koom géej teg ko ca marché ba ku ñëw bëgg a jënd jël yóbbu dem demewul noonu. oyofal lool. seet mbirum xam-xam la. Mm-hmm. mu yéeme. suñ boroom ay yonent la ko daan jox wala ay awliyaawu nit ñoo xam ne da dénk mbiru jaam ñi. Mm-hmm. ñuy wax ci nit ñi loo xam ne ñépp dañ koy teg bët. loolu nag dafa baax ñu leeral ko. Mm-hmm. moo tax ma ci xuus. daluma ci kenn waaye damay wax li am seet a gën a jafe ñaan bari na lu nit wax ni seet na ko ba gis ko te giñ na ci suñ boroom jëmmi boppam sax xamul xamu ci dara yaa ngi dégg loolu moo am senegal nag lu bari dañ koy def te tëggatuñ ko ci xam-xam moo tax réew mi demee nii waaye seet daal li may xamal askan wi bu ñu bañu nax seen bopp yombul du mbir moo xam ne mbirum li mbacc rek kenn jóg ni mën naa ko wala kenn jóg ni maa ngi koy def sekkare la lu nëbb la loo xam ni yombul may xamal nit ñi ñu def ci attention bu baax ndax di déglu nit rek mu lay wax ngay gëm di def te dara amu ceet daa mën a ñàkk te nit ñi dañoo toll foo xam ne ci réew mi dañ leen a war a gindi seet yombul baytaala mu doon lu am solo loo xam ne cheikh bi tam bëggoon naa nga wax ñu tam njëriñu njëriñu sarax dëgg-dëgg ndax jaami yàlla itam xam la mooy njëriñu sarax dëgg-dëgg waaw sarax daal ci liy dundal nit la bokk hmm. day yokk doomu aadama hmm. bari na ñu ñàkk ñoo xam ne bu ñu xamoon ne bu ñu sarxee ko woomle saa bu ñu xëyee sarxee sarax mën naa fekk ku amul dara mhm. cib koñ di sarxe ba suñ ñëpp sarax mën naa fekk ku feebar ba ñëpp ni dootul wéradi mhm. muy sarxe ba jóg sarax mën naa fekk koo xam ne ku sori suñ borom la mhm. di kàccoor wala ku saay-saay sarax bi di ko ñoddi di ko xëcci ba mu jege yàlla ragal ko yonent bi moo ko wax nee na sarax dafay jigeel jaam bi boroomam wax naa la nag ñi seen tur jot a des ci kaw suuf mooy ñi ëppoon lu ñuy sarxee ñi ëppoon lu ñuy sarxee sarax li tax mu baax mooy kilifa buy sarxe njabootam gi mu fi bàyyi gannaawam duñ neex a liggéey Cheikh Abdou day taxaw défendre ci ñoom fi ne bari na koo xam ni wane na ginnaaw dem la ko toppoon des ci ay doomam mm-hmm. ndax dëkk bi tam njibarante dafee am dangay gis kilifa goo xam ni fa muy liggéey day xëy mënatu la toog mm-hmm. wala mu xëy ay bëtam tëju wala wërsëgam wan ko ginnaaw loolu ci moom lañ ko def waaye bu fi jógee day continuer ci njaboot gi mm-hmm. dangay gis dañuy sonn lool duñ jàngee duñ jariñoo seenum njàng te doo xam lu ko waral ma ne sarax dina dimbali nit ci melokaan yu mel noonu bari na man mii bay taala ñu may romb ci dëkk bi ñu ami jafe-jafe di taxawaalu seeni sarax taxaw ci seen kanam te buñ ko defoon génn ci xat-xat yooyu bari na ambulant boo xam ne dama koy romb ci mbedd mi mu toog di jaay laa la wax valeur bi yooyu yëpp matul fukki junni te bu sarxe woon tuuti rek ñaari at ñett nga dégg ko ci capital yoo xam ni dina ci mën a dimbali ñu bari sarax na ko réew mi gën a fo mhm. mooy dimbali nit ngir yàlla ak di sarxe ngir yàlla wax naa leen la alal bu ko nit ki dajalee ba ni maako moom tée ko mhm. suñ borom ne ni ko génne ci as tuut jox ko jaam yi loolu sarax la mhm. kon sarax lu wér la loo xam ne ahlu kitaab wéral nañ ko mënta ñàkk ci nit te ku ko xam di ci gaaw dugg ndax ndimbal rek la ci jaam ñi jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bu am solo boobu noonu kon wax dëgg yàlla ndax lii tam dafa dafa dafa dafa dafa jox nit ñi xam xam fi ñu war a taxaw tamit macha allah rabbi bokk na ci tam bëggoon naa xam njëriñu salaatu alam nabi wala njëriñu turu yàlla boo liggéey ba mu wuyu la. waaw turu yàlla nag moom bayit ba ci Sëñ Tuubaa bind leer naa. Hmm. doy na àdduna bépp teg talu ci. dafa ni wa lafsu laa ilaaha muhammadun arsalahu ilahu صلى عليه بالسلام في جميع سهابه عن آله الله السميح أفضل ما نتقه من يذكر وكل من أنكره فيحصره ومن أدام ذكره مستقدرا فرابح ولا يلهي كدرا tuntuwaa nee تدو tudd تيكي كوي ديف مانام ديمبل لا تي خارنو بام كوي ديفه te ji bo togon fi di tuddu yalla ndimbal nga ci réew mi sayru réew mi ak batinu réew mi yépp suñ borom daf la koy leral yow mi tuddu yalla te kilifa ngay doon ci askan woowa tudd yàlla suñ tuwaa nee na amma dawamu sikrullahi fu akbaru lu nit di def ci kaw suuf tuddu yalla ko ëpp doole kon xam nga la mbir ma ne borom nag boo ko dee tudd mooy di ko woo dafa lay wuy sil boppam ci lay nëbbu ci ñëpp ndax suñu borom dafa bari ay melo melo mi feeñ nii rek fi ne moom lañ jariñoo ñun ñëpp yu nëbbu nag ñu jëm ci moom rek ñoo koy jariñoo loolu mooy mbirum tur yàlla salaatu ala nabi nag doy na nit ab sëriñ ne boo nekkee bitim réew saw wasila ngeen sore bu ne nga japp ci salatu ala nabi man na la téye di dox ak yow di dox ak yow ba duggal aljana ndax leer gi ci nekk nenañ ci kaw suuf li yàlla bokk nit ñi di ko def moom malaayika yi mooy julli ci yonent bi lu dul loolu yàlla di ko digal nit ñi lépp lu suñ borom bind muy mbindee fit hmm. day julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mala yeeg li dul li mala tey ay mbindeef yu suñu borom bind sax dañuy julli ci yonent bi mhm. donte digaluñ leen ko ñoom dañ koy barkeeloo ndax senegal yépp dañ koo war a saxal ñett yi dinaa ko digal réew mi mhm. mooy ñuy tuub di dellu ci yàlla mhm. ndax day yokk wërsëgu réew mi di yokk wërsëgu gaa yi tuub hmm? alxuraan daf ni فقل استغفروا ربكم إنهم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا jéggalu yàlla day tax yàlla jéggal la ba pare waaye yokk sa wërsëg fi nit ñi amul amul doom am jafe-jafe yi am doom buñ doon tuub génn ci waaw waaw boo nekkee jigéen mm-hmm. mënoo am doom di sëy waa koñ bi di benn bennal mm. foo génn ñuy wokkante sëñ Njaay nee na baleen fa yow jël astaxfirullah rek saxoo ko balaa mal juróom-ñaari weer nga ëmb <laughs> suñ borom du waxantu yàllaa ko wax ba yorul dara mm-hmm. na ci koñ bi mm-hmm. loolu ñu jiñ la ko daa yara dara yaay jee baaxul ak lu ne mm-hmm. man baleen fa di tuub jëm suñ boroom ñoom ñëpp la nga commencé leen dundal alxuraan ko indi nit ñi mën nañoo dimbali seen bopp waaye ndimbali lañ fi ba kenn ku nekk bëgg a déglu commentaire yi nga xam ni amul solo soit lii ak déposé fi yeeg yooyu mën naa ñàkk boo defee li nga war a def lépp xamoo fooy jaar dellu sil ci bunt bi benn bunt rek moo fi nekk buy dimbali nit ñi muy bunt bi yonent bi tijji ngir ñëpp ilhababan waaxidan iftax lakal abwaabu ku bëgg réussir faw nga tàllal yonent bi loxo mu jàlle la ma la ko wax man mm-hmm. ku bëgg a réussir mm-hmm. faw nga tàllal njol màkka loxo mu jàlle la mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag li ko suñ boroom wax ni ko ci lay dimbale nit ñi moom rek leen digal ñun ñii nga xam ne nag ñoo fi nekk di rafaatal di di di leeral rek ndax ñun ñi dañoo dimbali rek li sëñ Muntaxa waxoon ni fii kuñ dimbale fi nekk ñun ñi dañ ñoo dimbale rek mm-hmm. li ñu dimbalee kës néew nag bëgg nañ cee dimbali gaa yi bëgg nañ cee dimbali gaa yi yi boo gisee man émission yi sax daaw ma ko def mm-hmm. ndax man nitu kurus laa mm-hmm. waaye nag dafa jot réew mi ñu gindi leen dimbali leen bu du lool rek du baax baay taala Sénégal léegi dafa bari loo xam ne dañ koy moomale ñu ko moomul <laughs> def ko mbubb di ko solo solalaate waaw <laughs> ndeysaan <laughs> diine ji ñuy wax islaam mm-hmm. ñëpp ko bokk mm-hmm. heure bu ci bëgg nit bëggee dugg kenn tëjul bunt bi mm-hmm. kenn moomu ko yaa ngi dégg nit ñi ñu bëgg a sensé naxee leen i politique ba wuutal leen ci ay xeet amul solo noo mën a mel mbindeef nga ci jaam ñi nga bokk bay neewoon na bu ngeen dee dimbali nit ñi dimbali leen ci tijji leen buntu yàlla ñoom ñu dugg doon ay rijaalullahi waaye bu leen leen téye rek di leen yóbbu gauche droite yooyu amul solo mag ñi nag la taxoon ñu taxawal ay xare fii ci réew mi défendre seen bopp taxul woon défendre seen bopp défendral ñu moo tax ñii di dooru judd nag amuñu kenn ku leen défendre man nag wax naa la ko nee naa la pare naa pour sama digg ginnaaw gii ma boot ci gaa yi ku topp sama ginnaaw daal mhm. di nga xam fi nga teg sa tànk waaw loolu it maa la ko ci àggee macha allah ci leeral bu am solo boobu waaye itam ci ndimbal gi nga xam def nga ko ci ndax mhm. xam naa ni moom tawféex la boo mayaat askan wi itam fi mu ne mhm. xel salatu alam nabi daal fi mu toll nii wax dëgg yàlla doon na lu am solo muy wàllu feebar buñ ko xoolee fay tey fi jamono toll dafa bëri ci réew mi façon bu ne ñu di ko ci dégg te démb xewutoon Mhm. lan nga ci mën a wax ak tawat waaw tawat euh, damay déglu comme nit ñëpp di dégloo. Mhm. ndax fi àdduna toll xam naa ko. Mhm. Euh, Sénégal bari na ay xeeti tawat yoo xam ni jiiñ nañ ko lekk gi du lekk gi. ndax bu doon lekk gi ñëppay am tawat jooju. jot <laughs> ngi dégg. jamono bu ne nag nit ña fa ne am na lu leen di dal. mosoo dégg jamono bu amul feebar yonent bi daan seeti way feebar yi di dimbali way ñàkk yi kon jamono amoon na mm-hmm. nag feebar bu faj moom am fii ku fi feebar taxam fi ngay jaar mën ngaa wér mm-hmm. moo tax man la yonent bi moo wax ni feebar yi am ci kaw xeet wi yépp dañ koy faj mm-hmm. ba mu des benn feebar nag am na feebar boo xam ne kin mënu ko faj muy nit kuy màgget lank ni du màgget yonent bi neena ñuulal sa bopp ak tànn bi jaaw ak jéem a noddantew yaram ak téewul laa màgge téewul da nga bokk ci ñuy faat benn feebar boobu la islam wax ni kenn du ko faj waaye yeneen feebar yi fi am yépp man mhm. nañ ko faj ak lum tar tar mhm. ab jaam du déglu ay tubaab ak science yàlla mi boromam lay déglu yaa ngi dégg mhm. science bi yëg yii ñuy topp nii mooy gën a sànq nit ñi rek nit ñi li ñu war a science yàlla xalaatal na leen ko ba jox ko yenent bi ngir mu leeral leen ko fii dara ump fi kenn kenn ku nekk nag fa nga yem ngay déggee mm-hmm. fi sa yam gis yam fa ngay gisee mm-hmm. waaye kaw suuf si wala tamsik fil ardi maraqan nag lam taxriqal arda walan tabluqal jibaalu tuulan wax naa la ko fii nit ñi nañ ànd ak dal te xam ni mënuñoo bënn suuf si mënuñoo luqamti ko ba laal asamaan si mm-hmm. suñ borom mi fi bàyyi loolu wax ñu lim ñuy wax ni feebar yi wàcc ci yéen yépp am na lu koy faj te bu ngeen ko xam ko nañ gëm wax yàlla te bàyyi caaxaan yi mm-hmm. foofu la réew mi toll yaa ngi dégg ku tawat ak lu la mën dal xamal ni feebar lu soreeg dee la te boo sabab loo wér mm-hmm. képp ku ñàkk ak lu metti metti xamal ni man nga am ndax suñu borom yor wërsëg yi day wax be kep ko ñak ak lo ñak ñak xamal ni am kula gëna ñakoon gën a fuuf am ba ëpp la ñëpp yalla moy denkané su ko défé ñi ngi ñaanal gaay yi nga xam dañu nekk ci ay xat-xat yalla na leen yalla genn ci xat-xat yooyu ba taala amna fi ñu fi ñëw dama jàmbat dara ci réew mi ndax xam nañ ma bu baax nee ma réew mi dañoo bari ñu nekk ci kaso bi ci ay erreur baytaala loolu dama bëgg kilifa yi jóg ci ndax suñu boroom dafa wax ni nit kenn du ko xañ jàmm ci maali foro nii rek for ci mbedd mi yóbbu ramas tëj la déggatoo dara loolu du yoon nañu saytu mbirum jaam ñi yàlla dénk na ko ñi jiite réew mi waaye dénk na ko ñu jiite diine ji mm-hmm. nañ wax ci réew mi te bañ a noppi mm-hmm. noppi gi amul ñu benn njariñ ñi fi njëkkoon a nekk noppi ñëpp faat nañu suri leen mm-hmm. ñun ñun ñoo ci topp kon li fi lëj nañ ko lijjantil suñu bopp mën nañ ko bu ko defee gaa yi nga xam ne ñi ngi ci ay xat-xat yoo xam ne teguwul ci lu leer taay wax ak i kéet dong dugal leen fa nañ ko tegaat ci wax ak i kéet ba génne leen ci xat-xat yi génn leen ci dëkk bi ñu dugg comme ñëpp. Mhm. ndax ci lañ bokk. ci lañ bokk réew mi kenn wur koo lekk bàyyi sa moroom laa wax. Mhm. li fi am nañ ko bokk. Mhm. lu dul yoon bu ko fi kenn nangu. lii yoon ñu doxal ko. sàmmante. coow lit bari na fan yii. gis naa fi ay xew-xew yu xew. ay kilifa génn ku ne wax ni nii la demee. benn mooy takk-takk oto président bi tàkkoon fan yi may ba loolu man maa la wax ne la moo gën ci njiitu réew mi gën ci réew mi te ci battin bu leer nañ ñi laa ko teg mm-hmm. sootam boobu tàkkul woon moom natt boobu moom njiitu réew mi bu ko nungul woon a yanu ci suñ kaw la jëm lañuy mm-hmm. wax ci xam-xam te bàyyi ay tappale mm-hmm. yaa ngi dégg accident boobu mbir la dafa tinu réew mi xamaluma ko dara nag waaye dafa tinu réew mi ndax borom bàttin la fii lu fi xew dama koy lijjanti mhm. yor ma sama kurus gii rek ngir nii toog yaa ngi dégg mhm. jox ma teraanga ju toll ni di xam mhm. may xam noppi faa bokk ak ma ko booleel mooy jaam ñi li fi xewoon moo gën ci réew mi <coughs> topante gi sax bu ma sañon du ci am ndax ci kaw kilifa la dal te ku dem ba yàlla dénk lam réew génn nga ci monde jahil lañ ba suñ foñee la xamal ñaar li nga njiit réew mi fii ci Sénégal gii territoire bii ko yàlla dénk ku fi dérancé woon ak loo mën a xam ak noo mën a toll bu tàllalee ay loxoom ñaan yàlla ni ko kii bu fanaan man doo da yenu de ak ko meuna don ci rew mi bu la xam-xam jeye ba nga bëgg dugg ci ay tanki ku yalla dink am rew sa xam-xam wul suñ borom moy jël teranga diko ko jox ku ko neex neena nguur koy jox ku ko neex yalla ko jox waye nak amna fo xamni mom bu nango ñu ag ko faat ñun duñ nangu ñu ag ko fa da xam nañ responsabilité yim yor man nag réew mi nekkuma fi de. Mm-hmm. maa nga bitim réew fa laay fonctionné. <laughs> waaye ñi may dimbali bitim réew. Mm-hmm. ñii ay njiiti réew. Mm-hmm. te réew yooyu dëkkuma fa. réew mii ki ko yor noonu laa koy dimbalee. fii nga dëkk. ndax fii laa dëkk réew mi lu fi xew dal ci kaw réew mi ci ñun ñëpp la dal. nañ taxawoon te baytaal. te rafetal. te wàññi wax ji. sëñ Cheikh Tidiane si almaktoum dañ sëñ Moustapha bu ngeen bëggee jariñoo réew mi wàññi leen wax amul solo bu ngeen bëggee ñoŋ am leen yërmande ci seen biir sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nee na sëñ Moustapha bul nangu ko la xeeb bul xeeb sa bopp ndax yàlla xeebu la bu la xeeboon du la bind ci jaam ñi kon nañ jël teraanga ji ñu suñ borom jox ñu jariñoo ko yaatal fii mën nañ ko lijjanti li la ci réew mi mën nañ koo lijjanti. billaahi jërul ñuy dem fenn di xool lenn bu dee lu ñu war a xam suñ tubaab bind na ko ba fi ngi dégg mm-hmm. côté bu mu mën a doon jëriñoo ko rek moo fi des kon yàlla nañu yàlla defal barke émission bi tey sax damaa xaw a aalu waaye <laughs> mënta ñàkk solo ndax ko ñi bokk ci réew mi te caabi féete leen ginnaaw te ñi ay dugal leen ci wala jiiñ wala accusation yu mel noonu bàyyi xel gi leen bàyyi xel ñëpp bàyyeewuñu leen nii xel moo tax da nga da nga da nga laal lu am solo waaye li nga waxaat ci njiitu réew mi te mu mhm. loo lu mucc ayib. parce que tey man question bi ma bëggoon jeexale suñu émission foofu la doon jëm ndax ñu bëri dañ naan ay jinne ko taal sëñ bi réew lu jóg gars yi ne rab yeeg jinne yi sëñ bi man ba léegi damaa bëggoon naa ma ci rab jinne loo xam ne man mën naa koo waa réew mi mën koo dégg mën cee jëriñoo. dama ne junne yi ci réew mi. Mhm. lu fi nekkoon di déranger. Mhm. mel na man rek bu ma leen yooxal yooxoo ñu abal ñu réew. kon jinne ñemewul nit. mel na man laa la wax. <laughs> wax su ma leen yuuxoo ñu awal ñu réew mi. dèjà. fii waaye ca Gabon. Mm-hmm. fekk naa fa kilifa yi ju seenu njaboot lu leen te xamuñ ca dara man mii ma leen ko xamal. ngay wax foofu la jógee. Njaay <laughs> man mii ma ne maa leen ko xamal. kon xam-xamu junne soriwul ci kaw doomu aadama buñ mm-hmm. naxante yaa dégg mm-hmm. ah ñun nag def nañ li ñu war mm-hmm. mooy génn nañ gëstu li ñu suñu borom may def ko ci suñ dënn ubbi nañ suñu dënn ngir wan ko ñëpp bay taala dina am yu wàññeeku ci réew mi dina am ñoo xam ni seeni nattu ak seeni coono yaakaar nañ ni du leen teggeeku mukk mhm. giñ naa ci màggug yàlla dina leen ko teggal ma la wax loolu man mhm. bari na fii ci réew mi ñoo xam ni seeni difficulté yaakaaroon nañ ni day continuer rek di dox ci seeni xeet mhm. loolu moom jeex na sama loxo bii ma tàllal ku ci teg sa loxo suñ borom mën na laa dimbali xarnu boo gis yàlla leen dimbali moo tax ma ne yàlla nañu yàlla boole dimbali rek ba ci kanam tuuti. <laughs> xam nga sama gars yi nee nañ ma bul feeñal <laughs> feeñalu ma nag waaye dama dama bëgg rek. rek. waaw dama bëgg nit ñi.